ne bu professeur ñëwee ma laaj ko ba xam ndax loolu mën na nekk ñu ne dañu inculpé euh, Juan Branco par exemple. Mhm. il a été inculpé sur le sous contrôle judiciaire. Ah, donc après ñu ne ils peuvent ils peuvent pas le l'expulser. pourquoi parce que. xam nga xam nga décision de justice moom sur euh, suñ la de la nee suñ la inculpé la décision du ju du juge d'instruction inculpé la tout ça après justice li muy wut mooy garantie de représentation normalement. ok ok parce que suñu la inculpé garantie de représentation bi mooy tax yow su procès bi jotee. ñu mën nga mën répondre de tes actes devant la justice. Mhm. Mhm. mais dès l'instant que nga am garantie de représentation bi rek. Mhm. Euh, l' état mën na def euh, affaire mën na la bàyyi nga dem ko. tout te je pense que dans l' affaire Juan Branco bon xam nga affaire Juan Branco tam dafa xaw complexe. xaw sew waaw. xam nga lu tax. Euh, man mu am naa sama ressenti personnel. mais je suis sûr que bi ñu ko jàppeek tey le téléphone n'a pas arrêté de sonner entre Dakar et Paris. Mmh. daanaka affaire d'état la en fait quoi. Ah, d'abord nit ki ñu jàpp c'est un avocat. avocat yi doon am des protections particulières. Mmh. deuxièmement affaire entre la France et le Sénégal. xamoo diplomatie depuis là c'est des affaires diplomatiques xamoo. Mmh. mais man ressenti bon loolu c'est mise à part vraiment ces réserves man je pense que sama ressenti personnel laay wax nag lii. Mhm. man je pense que euh, l'état du Sénégal a été trop indulgent avec Juan Branco. Mm-hmm. waaw parce que Juan Branco pour man non seulement ñun ñëpp daf ñu saaga. Mm-hmm. saaga suñu état saaga suñu institution. tout le monde en fait il n'a respecté aucun Sénégalais. dañ ko waroon a téye fii. yow déjà ñëw nga fi da ngay assister à un procès pour défendre ton client ok ñu commencé saaga président wax la neex. Mm-hmm. ñu ñu daal dàq la. on t'appelle dañ lay expulsé. Sénégalais yi faral ko. am na sénégalais yi ko faral ñenn xam nga lu grave dellu si bi mu dellu si Sénégal dugg si. quand même mu am mandat international bu Sénégal lancé. Mhm. moom mu dellu si dugg Sénégal. il défie l'état du Sénégal défie ñun la il défie tout le monde. faalu lu si kenn. ñun la de. et pour man grave. tey Sénégal fexe ba jàpp ka mhm. mais kooku soo ko xasee ba tey. Mhm. tu lui montres que le Sénégal c'est un à fait avec des lois man tey c'est-à-dire pour man il il nous a tous humiliés carrément juge bi décision bu mu jël ne nous a pas rendu notre notre fierté quoi. dignité le fait de l'expulser. le placer sous mandat de dépôt. dañ ko waroon a téye fii. dañ ko waroon inculper de déjà fee fee yi ko toppee dafa grave. Mm-hmm. ñëpp ay ñëpp ay. te on aurait dû le placer sous et puis mu toog di di jaay eh, xaw ma ko may promotion. du nga bàyyi ko ko bu sonnee nga yóbbu ko hôpital comme ni nga yóbboo